gis nga euh, Aïcha Ousmane Sonko dafa am benn logique. boo xam ne moom ci la nekk depuis toujours. te j'ai l'impression que ni bëgg ko bëgg ko wàcc lan mooy logique am logique am mooy moom et man bi muy wax loolu fa fekk na ma toog parce que euh, boobu ñu nga doon defamu émission ci Yoff ak yeneen journaliste dafa waxoon ne parce que boobu je crois que Ndeye Mariam Ndiaye moo ko laajoon ou Momar Diong je ne plus ndax. am na ay chef d'État yoo xam ne mi ngi dégganteel ñoom ñu ngi koy soutenir affaire yooyu Ousmane Sonko avait dit à l'époque que ni moom amul xaritoog benn chef d'État moom sénégalais la dénk boppam. xam nga sénégalais la dénk boppam ça ça résume li nga bëgg a wax yëpp. Mm. beneen bi mooy te d'ailleurs Macky Sall mer na ko ba wax ko mooy France euh, waajalee France nu mu tudd ki leen jiite léegi Emmanuel Macron. Mm. yónni na nit. mu seeti Ousmane Sonko. Mhm. waaw Macky wax na ko ne moom il trouve inélégant que Élysée mooy fa Emmanuel dëkk mhm. di yónni nit muy seeti son opposant man loolu ma wax la fii Aïcha mhm. que man lool lu ma yëgoon la bu yàgg très sincèrement bu yàgg bu yàgg dëkk bi jax na que ni am na euh, man sax li ma yëgoon mooy jigéen la ka fa ah. def ah. kañ fa yónni woon mu seet ah. mais yooyu souvent man du ma bëgg di ci wax parce que vérifier ko moo may jafe mm-hmm. nit moo la koy wax mën nga ko wóolu lool mm-hmm. mais je dis souvent journaliste bi ma doon parfois damay am réaction yoo xam ne attitude yoo xam ne je n'aime pas sax di am yooyu mooy attitude xam ne yow boo demoon ba sa papa jox la information sax il faut nga vérifier exactement mm-hmm. mais man très simple je le dis nit wax na ma yàgg na ne ma kooku ki ma ko wax sax bokkul ci waa Pastef yi d'ailleurs mhm. ne ma le leader de Pastef recevoir na quelqu'un boo xam ne ca euh, ma nga jóge ca France mhm. et d'ailleurs l'objet de la discussion c'était quoi ci liñ ma waxoon à l'époque mhm. que ni les gars voulaient savoir wala boog l'Élysée voulait savoir ba xam effectivement waa ji niñ ko présenté comme quelqu'un boo xam ne moom ñoom Guy Marius Sagna ñoo yam France dégage anti-français et tout et la réponse de Ousmane Sonko à l'époque c'était man awma problème avec les Français. aw ma problème avec la France. mais li ma gëm mooy li américains yi di wax Amérique first. Mhm. xam yi ñuy wax loolu l' Amérique d' abord. d' abord réponse ci kooku noonu waa yoo euh, yónni woon mooy man Sénégal d' abord. te yaakaar naa ne sax réponse boobu da ko biraloon ci kaw. Sénégal d' abord. man loolu bu ma ko déggee wax dëgg yàlla yàgg na. Mhm. mais j'ai jamais eu l'occasion d'en parler mais comme Macky Sall mu euh, ngi koy naqar lu bërki démb ma ne mhm. kon li ma yëgoon loolooy li am. mais pour en revenir à à question mooy finalement. Mhm. li tax ñu intéressé wu ci ci waa jooju mooy li ma la wax sànq. te su demee ba ku mel ne Macky Sall également. loolu mu koy mu koy dénoncer c'est parce que xam na ne son opposant nekkatul rek quelqu'un boo xam ne ci Sénégal la envergure yam am na au niveau international lu mu commencé di teg Macky Sall je l'ai dit wax naa ko waxati ko wax na keroog benn waaye wax na ma ko ne ma est-ce que li nga wax ci Macky Sall ne c'est un homme intelligent est-ce que dëgg la est c'est pas un situationniste mm-hmm. quelqu'un qui qui profite des mm-hmm. ma ne ko peu importe mais man je juge qu'il est intelligent mm-hmm. intelligence am moo ko may mu comprendre que waa ji mu ko see am na lu mu commencé di tekki au niveau de l'étranger te son entretien bi mm-hmm. mu def ci le monde trahir na waxam parce que nee na il trouve inélégant que France di yónni nit ci ki nga xam ne moom mooy opposant beneen bi mooy man lay wax sax Ousmane Sonko quand il di man sénégalais yi laa dénk sama bopp. Mm. su demee ba moom mu wax ne candidature am ci sénégalais yi la dépendre dépendrul ci keneen. mais ça veut dire moom la mu waxoon ne sénégalais yi laa dénk sama bopp ci la nekk ba léegi et loolu man je suis avec lui parce que Aïcha nag mënuñu nekk ci démocratie candidature à une élection di dépendre ci un président un président boo xam ne c' est un président sortant il ne sera pas candidat en 2017 il avait choisi am na koy wax souvent il avait sélectionné les candidats ñu ñëw euh, il n' est pas candidat mais il a son candidat il a le droit de choisir le candidat de Benno parce que ñoom ñoo ko may da ko choisiral mhm. mais amul droit di choisir yenn amul droit di choisir yenn candidat yi parce que sénégalais ñoo warul nangu ñu leen di tànnal ki ñu war a tànn parce que bu ñu nangoo ñu boole diw génne diw rek ça veut dire que ni ñun tànnuñu ñoo tànnal ne tànn leen ci ñii c'est aussi simple que ça mi ngi mel ne Jamil mi bëgg soxna euh, papaam indil ko ñetti xale yu jigéen ne ko tànnal kenn. mais Jamil tànnul papa ma ko tànnal. effectivement dañ koy bàyyi mu tànn comme bëgg. alors mais Moussa man li ma li ma fi ma bëggoon que mooy question la tànn boobu la. mooy mhm. ne Euh, li ñu gis book man mhm. li ma liir keroog ci discours njiitu réew Macky Sall discours la boo xamante ni bu ñu ko dégloo bu baax a baax mooy ne que tôt ou tard dina xupp jëm ci kaw Ousmane Sonko parce que mu ngi naan képp koo xam ne décision justice dafa gàll sa mhm. topp ba mu jeex donc loolu est-ce que du eh, mën na fi nga wax naa la wax naa la vendredi mm. ne la Macky Sall ni ma ni ma dégg muy wax dafa mel ne li ñuy wax sa genre gi bu ñu dee xeex ci mbedd mi rek mag ñi lañ gën a yab parce que mag ñi ci mbedd mi la ñu nekk di xas lu nekk ñu wax leen mais buñ génnee seen morom yi duma leen. Mhm. ñu ne léegi teel ma xale yi. ma duma mag ñi. j'ai l'impression que Macky li mu def mooy teel waa kaawam xale bi muy Ousmane Sonko mii leen sonal ñoom ñëpp. Mhm. su ko defee mu bàyyi leen ak ñoom Khalifa Sall ak ñoom Karim Wade ak ñoom Idriss Seck lu waay ku waay ku mën sa morom duma. mais loolu ñiy def làmb ñoo koy résumé ci lu yomb Aïcha gis nga damay seetaan souvent léegi bon li xaw ma ngi am ba léegi mais dama ko daan seetaan lu bari face à face làmb yi. Mm. da gis kenn mu ne dinaa la ni ñu koy wax sax dinaa la dóor song la xaw ma ni ñu koy waxee noonu la. dinaa la dóor duma daan la. song la mais souvent da ngay dégg adversaire la booy song xawal li nga fay fekk. yaa ngi ne Ousmane makki Sall boo ko dégg wax dafa mel ne songi waat Ousmane Sonko la bëgg. Mm-hmm. ni mu bëggee woon a nekk candidat xañ Ousmane Sonko bokk mais tout dépendra ci li fay fekk. mooy ba tey askan wi ñëwaat rek. tout dépendra ci li mu fay fekk. Ah. parce que politique Macky Sall loolu la gëm. Mhm. Ousmane Sonko loolu la gëm ñoom ñaar ñëpp liñ gëm mooy politique rapport de la. Mhm. xanaa xamoo même en matière de de dialogue de dialogue. Mhm. defe naa Wole Soyinka moo ko bind xaw ma daal euh, am na ko bind ci bindkat yi dama ko teeluwul trop dafay wax ne même booy nekk allié ak nit bul allié ak moom bi nga nekk ci position de faiblesse. parce que bu boobaa yóbbaale ngay doon loolu mooy li dal waa PS ak waa AFP mhm. sooy allié ak ni da ngay allié ak moom moment bi nga xam ne yow sentir nga ne am nga doole mën nga ko jariñ dara su boobaa vous négociez d'égal à égal Macky Sall ñi mu tegoon ci dialogue bi négocier wul ak ñoom d'égal à égal ah que xam na ne ñoom ñëpp ku ci nekk am na fu mu la téye. d'où cette phrase là ci njëkk rek da ngeen may ñaan lépp. da nga exactement da ngeen may ñaan ci njekk mhm. rek. Mhm. mais su ko leeree ne force yi dafa dafa tolloo. ku nekk pare nga pour defante. Hmm. su boobaa buñ dee négocier loolu mooy négociation loolu mooy dialogue en fait. kon bu ma la déggee baax Moustapha kon dialogue war na mën a am ci diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko directement. mais mais dafa war a am. mais jaloog boobu du bokk ak dialogue bi doon am palais moo tax euh, am na lu lu jar a waxtaanee Aïcha ci réew mi souvent da gis ñu naan ñi waa Pastef c'est le reproche bi ñu leen di def dañ naan ñoom ñu waxoon ne. du ñu dem dialogue ñoom ñoo naan tey pare nañ pour def des sacrifices pour dialoguer. Mhm. mais mais dama ne yaa dialogue dialogue c' tout à fait différent. Mhm. dialogue bi ab Ablaye Wade daan def ak Abdou Diouf boobu ab di Diouf da ko daan leer ne bu Ablaye Wade nekkul ci jàmm moom dina ci jàmm. Abdou Diouf da koy leer ne su ab Ablaye waat nekkul ci jàmm réew mi du jàngi duñ liggéey syndicats yi dañuy grève étudiants yi grève élèves yi grève su boobaa da kay woo ñu waxtaan ñoom ñaar. Oh moo tax Abdou Diouf daan toog ne je lance un appel solennel à Abdoulaye Wade secrétaire général du parti démocratique sénégalais parce que xam naa ne ni mu bëgg réew mi laa bëggee réew mi war nañoo ànd defar réew mi. loolu mooy dialogue mais dialogue bi amoon pale mooy dialogue pour ma bokk. Mm-hmm. dialogue pour ma bokk ça n'a ak dialogue pour ku nekk da nga natt sa doole ñu mm-hmm. xam ne ñuy ñuy jàkkaarloo. Mm-hmm. su kii bàyyiwul dara kii bàyyi dara. confrontation bi ngay wax noonu day am. Mhm. su boobaa dialogue day am te dialogue boobu li koy indi mooy day am ñoo xam ne ñooy dox ci diggante bi wax. Ousmane Sonko xam nga wax na keroog ne Sénégal jaral na ko def ay sacrifice. Mhm. mais loolu ça veut dire que ni am na lu mën a bàyyi. dëgg la. également wax na ne Sénégal moo ëpp jëmmam ji ça veut dire que ni am na lu mën a bàyyi. Mhm. suñ tegee l' intérêt supérieur de la nation ku nekk dangay am loo bàyyi ñu dem ci élection ci jàmm ak mais loolu man loolu naa gëm. jàll mhm. politique rapport de force la même dans le dialogue rapport de force la. Mhm. Ablaye Wade da daan natt dooleem ba Abdou juuf leer ko ne doole ji Ablaye Wade yoon xajul ci ngóoram gi. Mm. am na ay époque yu bëree bëri 88 93 ak yeneen ak yeneen. su boobaa ñoom ñaar dañuy daje waxtaan. Mhm. mais su loolu amul.